oto yëpp fi dañuy jaar kalandoo yeeg bis yeeg yëpp di noyyi poussière ba ngoon jot daanaka man daanaka chaque semaine ma feebar kon nag war nañu wax état bi mu defaral ñu tali daal waaw loolu daal la ñaan parce que ñun fi la ñuy nekk huit ba vingt deux heures mun ñu wér kon nag war nañ defar tali bi daal waaw poussière bi kay xam nga ni feebar rek xam nga ni poussière bi kay ñu ciy mooy kenn mënta wér njaboot gi mënta wér surtout ñun ñu dëkk côté sotra sotraak bi nii mun ñu wér Kër Massar daa war a am lépp parce que Kër Massar léegi département la war a defar dañ ko war defar Kër Massar dañ ko defar waaw loolu la ñuy wax état bi. jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel moom métti na météo parce que xam nga boo nekkee yaay wala nga nekk au moins bàjjam wala tata nga yor sa doom muy jàngi mu leer na yow yaa ngi dëkk ci kaw tali bi sa doom buy jàngi day leer que ne yow de protection moo la gën a intéressé. te fii nii xam nga leer na la leen ñun ñu dëkk ci kaw tali bi doom yi mënuñ génn parce que bu sa doom boo ko yónnee biti sax yaa ngi xalaat oto yeeg seen daw bu gaaw beeg amuñ ralentir te dañuy ñaan aussi tali bi ñu defaral ñu ko quoi def ci ay doodaan parce que doodaan yi aussi dañuy arrangé parce que oto yi bi ñu dawee vitesse ni romb la nii mënoo wax ne bu dee xale la mënoo yow lu ngay mën a def rek mooy yuuxu ci saase mënoo daw sauver ko da ngay tuuti ba taxaw fi nga taxaw daal buñ sañoon daal ñu dimbale ci kaw tali bi biru bëri na seen daw daw yi gaaw na dafa da yor doom sa nee naa la dafay jàngi yow sa xel mi li muy nekk yow yaay yëpp mooy ko ni nan lay def sama doom bi ñëpp si seeg jàmm parce que li ngay xalaat yow mooy ko ni na dem jàmm ñëpp jàmm tali bi xam nga liy wóorul surtout boo yoree ay xale yoo xam ne mënuñ traversé tali boo xale bu bëggee traversé ba amul ko ko dimbal day am problème déviation parce que dañuy defar tali ci kaw dañuy defar collègue ci côté station bi moo tax oto yi di dévié ni mais suñu que sincèrement parlé ñu yaay da ko yónni sa li ngay xalaat kon mooy que ni sama doom bi xaaral ma taxaw ci buntu bi ko yoon parce que man damay dama yor ay xale damay jékki-jékki génn am ku ma wax ne yow sa doom bi tuuti oto fër ko mais lu ma ci wax dama ko naan merci beaucoup ci li bi parce xale bi mun nga wax ne yow yaay nga mais munoo wax ne tout temps rek da ngay nekk xale bi xam nga ku nekk am nga cité bopp donte doom itam ñun yàlla dañu koo dénk pour ñu sàmm ko dañuy def tout lépp lu ñu mun rek pour aar leen daal bi ñuy ñaan mooy que ni mu dimbale ñu ci kaw tali bi pollution bi sonal nañu poussière bi gis nga maladie yi moom kenn xamul fi ñuy joge fii ñëpp a feebar ñëpp gars yi dañu dox rek mais tout le monde ñëpp a feebar koo laajte mu naan amee naa asma dama amee porox buy métti goiatul sax nee naa la ko gars yi dañu foog bi de poussière bi pollution bi li ñuy nooyi moo baaxul te pollution bi aussi baaxul ci environnement bi quoi yoo xam nga poussière bi instant bi ni dafa transparent doo ko gis looloo tax mu gën a dangereux même boo nekkee sa kër yow mën nga wax ne sama lekk bi dinaa def ci li ma rek waaye leeru la leer na poussière am na fu mooy du ñu daal daal ñu naan ko mat propriété affaire bi set poussière bi wàññeeku biru bi gis nga tali gis nga ko tali poussière bi muy jógee doo xam sa la jógee moo tax li ñu ñaan gouvernement mu dimbaluñ ci ngir yàlla ci tali bi defaral ñu ko def ci ay doodaan pour que oto yi mun di relaxé quoi même waaw xanaa métti rek te aussi tamit di ko métti lu ci lu bëree bëri parce que poussière bi bëri na ngelaw bi tout ça aussi yoon bi yàqu na te it nawet bi bu ñëwee dañuy sonn par rapport ak taw beeg du genre quoi mu nekk soos boo xamante ni day def benn impact sax ci diggante client bi ak kii bi parce que ndox mi bu amee day tax euh, client yi pour duñ mën a am accès quoi pour mën di ñëw ci place yu sori yi pour mën a xool ndax am na bagage yoo xamante ni soxla leen ko le du genre ba di ko mën di jënd quoi yóbbu ko fi nga xam ne en tout cas jafe-jafe boo xamante ni client bi daf koy subir mais aussi tamit jaaykat bi tamit da koy subir quoi vraiment mu nekk loo xamante ni lu métti la nag ci ñun ci ñun jaaykat yi parce que fii ci Sotrac nekk na cité boo xamante wala quartier boo xamante ni xaw na sori mais aussi tamit maanaam nguur gi daal taxawaayam des na quoi ci lu bëri que soit ci yoon bi que ce soit ci nekkiwaay beeg ci genre parce que ñu ñëpp xam ne ne maanaam pour dëkk bi dox dëgg il faut que ñu am yoon puisque yoon bu amul rek dañuy gis ne problème bu rëy day am parce que gars yi sax dañuy mu lay jàngal comme nga war a dresser benn projet du genre ci comme puisque ñun ay agronomie la dañ naan la première chose bi maanaam seet seet yoon parce que yoon ci lay tax dafay joué ci économie lu bëri que ci transport beeg wala jaay beeg jënd beeg pour affaire bi économie bi mën a avancer il faut que ñu am yoon boo xamante ni maanaam gars yi foo war a daw une heure de temps nga daw ko fa mais bu fekkente ni fii sotra dañuy gis nga foo xam ne da nga fa war a daw une de temps mais da nga koy daw ay deux heures de temps te loolu dafay perte temps te ñun ñëpp xam ne ne temps dafa cher et tout ça léegi yoon bi normal boo baaxul dañuy xaw a am problème boobu